la jërë ngeen jëf mbokk yi nuy bàyyi xel ci Touba Argentine TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu ànd bu ngeen di ànd ak ñun mbokk yi nag tey ñi ngi leen di nuyoo ci dëkk bu tedd bii nga xam ne fi lañ taxaw di wax ak yéen muy Daaru Saam di dëkkub Serigne ma Samba Diop Saam tey nag Touba Argentine TV déplacé équipe bu takku ngir ñu ñëw. war a couvrir événement bu am solo bi nga xam ne mu ngi fi am muy ziar annuel bi nga xam ne at mu nekk njaboot gi ñu ngi koy amal ci kanamu képp koo xam ne moom la fi yàlla teg mu toog toogaayub xalifa ma Massamba Diop Samb di ñaanal bu baax a baax Serigne Abdourahim Diop mi nga xam ne moom mooy xalifa bi suñu borom gën ko fa yàggal lool te dolli ko wér fii ñuy waxee ak yéen nag 11h euh, daal dinay teg jot ba tegal ay simili yu néew. Euh, fi nga xam ne moom mooy ci Daaru Saam euh, fii ñuy waxee ak nag mooy entrée dëkk bi maam ci bunt bi la ñu nekk jamono jii euh, ngir di leen wan ne yegsi nañu ci Daaru Saam fa yéene dugg ak yéen ci biir lépp loo xam ne dana tukkee ci ziar bi nga xam ne mu ngi fi am daañ leen ko wan fii ñuy wax waxee yéen nag. Euh, ñi ngi tolloo fi nga xam ne mooy poste de santé bi nga xam ne mu ngi nekk ci entrée dëkk bi gis ngeen tamit euh, euh, gan ñi taalibe yi ñoom ñëpp jamono ji ñi ngi ñëw di dugg si ci dëkk bi mais booy dugg si dëkk bi tamit tamit nemmeeku nañu fii ñi nga xam ne ñooy sécurité bu am solo boo xam ne ci wàllum circulation bi ya ci aju ñuy orienté oto yi ak di guider ñi nga xam ne aussi ñoom ñëw di nit ñi fenn fu nekk nag la nit di jógee ci biir dëkk bu réew mi di Sénégal waaye am na ñoo xam ne sax dañ jógee bitim réew ngir di teewee li nga xam ne mooy ziar bu am solo bii nga xam ne mi ngi am ci dëkk bii nga xam ne moom mooy Daaru Saam di dëkkub Serigne Massamba Diop Saam euh, nekk ci euh, euh, diggante ma Kébémer war a toll ci juróom-ñetti kilomètres xam naa ne rek alaaji Gora Ndiaye ndaanaan mi ngeen xam moom it di ndaanaan di kenn koo xam ne it macha allah miin na yoon wi lool. mi ngi nii taxaw alaaji góor a xam naa ne rek dama lay jox kàddu gi rek e, nga sànni ci ñaari kàddu su ko defee rek après incha allah suñu e, caméraman Mbaye Seck e, ñu ànd ak moom ci présentation bi seen bokk Arona Cissé dugg ak yéen ci biir nag demal leen fi nga xam ne moom mooy ci kër kilifa yi ziyaar yeeg ya ci aju waaye incha allahu dinañ leen jël ay interview en même temps tamit. des na ànd ak yéen ci cérémonie officielle bi alaaji góora maa ngi lay nuyu bu baax a baax te di la ziyaare aousu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin allahuma salli ala seydina muhammadin wa salim jërëjëfati sëriñ Tuubaa Seexul Xadim Cheikh Bamba Xadim Rasul iskay borom Tuubaa borom Tuubaa ul morom jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp asbil sutóori aslix umóori kasil xuyóori bila kidaahi sadid lisaani nawir janaani safil amaani wasibarahi barka Cheikhuna Ahmadou Bamba sëriñ Aaroon si sa jërëjëf euh, nuyoo bi nga nuyoo maa ngi lay nuyoo ak siyaar di ndokkeel di dalal jàmm ci barab bii nga nekk di la tatagal di la wax ahlan dalal jàmm di ñaanal yàlla sëriñ Mamadou Mountakha Mbacké yal na ko fa saa borom yàggal te doole gërëm noonu la ko ñaanal sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Fall Mbenda xalifa Cheikh Ibrahima Fall yal na yàlla lool Fall te ko waaye di siyaare borom barab bii nga xam tey mooy bërëb boo xam ni bérébu sëñ Tuubaa la waaye béréb boo xam ni ndigalu Seexul Xadim la bisub tey bii muy kan sëñ Ibrahima Diop de xalifa sëñ Masamba Diop Sam ñu ngi ñaan yàlla Diop mu yàgg fi lool tawér darajey Seexuna Ahmadou Bamba Xaadim Rasul sëñ Aroona jërëjëf euh, fi nga duggee ci barab bi tey yaa ngi ci digg Kajoor ngi ci barab boo xam ni fa tabarakalaaw ma dama ni bu doon la bu doy sooyunu ak Kajoor kun séddoo muy sëriñ Cheikh Massamba ku nu séddoo maam Cheikh Issa Diène ku nu ngi nii njalee ngi nii wàqee ngi nii waaye Daaru Saama ngi nii waaye itam Ndanda Fall ngi nii dëkkub Cheikh Issa Diène kon day mel ne kon bisub tey bii bis boo xam ni la Sëriñ Tuubaa waxan ca Saalum ni ku dem Saalum àggoo Daaru Pakaca day mel ni demoo demoo Saalum waaye ku ñëw tudd Kajoor ñëwoo siyaare ma Samba Diop Samb day mel ni demoo Kajoor kon daal alhamdulillahi rabbil alamin waxi sëriñ bi la ñuy wéel tey tey bis la boo xam ne bis siyaar la ku ni fàttaliku tey jàmbaar ñi nga xamante ne fii di góor yàlla di jàmbaar lislaam di ñayu xare di mbër sadiq sëñ Massamba Diop Samb ka nga xam ne kada Cheikh Lo Khadim woo mag ñu baax ñu dajee ku mel ni sëñ Massamba Diop Samb di jëmmam jooju ku mel ni maam Cheikh Issa Dieng maam Thierno Birame Damal Daaru maam Cheikh ma Fall ku ci nekk dara laaj li sa bëgg ak la ma sa yitte moom man àgga ci ko nite kon nit ku nite ngi nii tey barabam la ñu tey di daa Samb jëla 700 billets 2023 ci pàkk bu sell pàkk barkeel dëpp fukki fan ak ñeent ci maamu koor kon daal Arona euh, ni ko waxee rek euh, ñu ngi lay dalal jàmm di la ñaanal organe de presse bi nga xam ne ñoo nga andi ko bi nga xam ne waaw euh, di bërëb a sekk sama waaja di ko bàyyi xel kon ñu ngi lay tatagal di la wax ahlan wa sahlan dalal jàmm ci barab bi ni nga ko wax rek incha allah boo lu lu waaye bëgg a xam baa nga bëgg koo gis baa nga bëgg koo dégg tey am nañu bu ñu dëppee micro incha allah bi daan la leeral fan mooy Daaru Sam lan moo sababu siyaar bi tey dañu jàpp sëñ Masamba Diop Sam aaroon na kon jërëjëf ñu ngi lay wàcce suñu kàddu foofu di wax dugg si nga ci bunt bi ku dugg ci bunt nag da nga ne salaamaaleykum ku bëgg a jàll da nga jaar ca buntu ba moo tax mi nga taxaw ci buntu bi taxaw ci eh, buntu bi nga xam ni moo bàyyi ko ci tali bi jëm Kébémer bàyyi ko Touba nga fas yéene dalal gan ñi ànd ak ñoom ci taxawaay ba am solo dañu ñaan yàlla yàlla na ko teew na nga déwén barka Seexuna Ahmadou Bamba seen mbokkum taalibe góor a jaay ndaanaan géewlu Seex Ahmadou Fall Mbacké wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Arouna doxal ca kaw ca kanam yàlla na sa borom jàppale la Sam macha allah jërëjëf Gora Ndiaye ndaanaan macha allah ñu ngi lay sant di la yeewee rek di la bàyyi rek nga daal di continuer euh, daal di dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi kon yaakaar naa mbay Seck lii mooy euh, ouverture bi nga xam ne doon nañ ko amal fii euh, ci Darou Sam ci entrée dëkk bi dëkk bi nag comme ni ñu ko waxee gis ngeen ko gan ñaa ngi nii di ñëw oto yaa ngi nii macha allah donc muy dëkk bu nga xam ne it dëkk la boo xam ne lépp lu dëkk war a am rek lu ci baree bari am na ko. Euh, ndax boo xoolee poste de santé bi mu ngi nii courant bi tamit la même chose am na ndox yeneen ak yeneen ak yeneen yu yëpp incha allah dañ ci ànd ak yéen Daaru Saam daal dëkk la boo xam ne. kon kenn ci njabootuk Cheikh Ahmadul Bamba Xaadim Rasul kenn ci ñi ko toppoon muy Serigne Massamba Diop Sam euh, moo moo nekk fii tey waaye euh, ab xalifaam. ñuy amal ziar bi tey ci teewaayam ak mboolem njabootuk ma Massamba Diop Sam gi yëpp ak mboolem taalibe yi moom la ñu bëgg ànd ak yéen ci Touba Argentine TV ci présentation bi seen mbokk Arona euh, Cissé euh, ci caméra bi ki nga xam ne moom mooy mbay sekk moom moo fa fare macha allah ñu ànd ak sunu jëwriñ foofee ca Argentine muy euh, a sekk moom it di kenn ci kër gi di ci amal taxawaay bu am solo tey nag mu ne liggéey bi yëpp da koy joyal jëmale ko fi nga xam ne moom mooy Daaru Saam bañ dara rëcc leen ci li nga xam ne moom moo di ziar bi kon Alaaji Gora Seck ñu ngi lay jaajëfal bu baax kon mbay Seck rek incha allah dañuy ànd ak yow daal di tàbbi ci biir wan leen gan ñeeg ziar beeg ya ci aju ak lépp loo xam ne mu ngi tukkee fii nga xam ne moom moo di ci Daaru Sam fii ci Daaru Saam fii ñuy waxee ak yéen ñu ngi ci kër Serigne euh, Bassirou Diop moom fàllu Fallou euh, ma Diop euh, moom Serigne Massamba Diop Saam fi lañ nekk nii ñuy waxee ak yéen. actuellement nag bi ñu moom it gis ngeen taaliba yaa ngi noonu di amal li nga xam ne moom mooy ziar ak saafonte gis ngeen bi ñu buggee ci kër gi ñu ngi yem ci jànkati alxuraan yi ngir bis bi tey ñu koy dundalee li nga xam ne moo di alxuraanul karim ginnaaw bi nga xam ne nag génn nañu fi ñi ngi fii ñuy waxee ak yéen ñii kër sëriñ abdu Samad jóob moom sëñ euh, Matar Diop euh, moom it euh, mi ngi nii di saafonte ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi ak soppe yi ak wëllëre yi nga xam ne tey teew nañ ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Daaru Saam voilà ginnaaw bi nga xam ne nag génn nañ euh, euh, kër sëriñ euh, Abdou Samad Diop moom sëñ Matar Diop ñi ngi fii ci kër Serigne Bass Diall moom Serigne Bassirou Diop fi lañ nekk nii moom sëñ ma Massamba Diop Sam moom it gis ngeen mbooleem taalibe yi ñi ngi ni toog ñenn ñi di amal li nga xam ne moom moo di seen ay ziar di saafonte ak ki nga xam ne moom mooy Serigne Bassirou Diall moom Serigne Bassirou Diop moom Serigne Massamba Diop Sam fi nga xam ne mooy ci dëkk bu sell bi nga xam ne moom moo di Daaru Sam xam ne nag tamit euh, moom mooy que Serigne Bara euh, moom Serigne Abdou Samad Diop moom it ñu ñëw euh, seet si ko nemmeeku ko ngir saytu taxawaay bi fii waaye moom it macha allah comme niñ koy amalee rek ci yeneen kër kilifa yi rek lañ ko amalee mboolem njaboot gi yëpp ak taalibe yi ñi ngi daal di toog ak sëriñ bi di amal li nga xam ne moom moo di seen ay ziyaara fii ci dëkk bu sell bi nga xam ne moom moo di ci Daaru Sam naaw bi nag euh, ñëw nañ fii nga xam ne moom moo di kër Serigne euh, Sam jóop moom Serigne Abdou Wahab Diop moom Serigne ma euh, Samba Diop Sam moom it actuellement ñuy waxe yéen ñi ngi fi nii baa ngi noonu toog ci kaw taalibe yi nekk ci suuf di amal seen ay ziar di saafonte ak ki nga xam ne moom mooy Serigne bi di Serigne Sam Diop moom Serigne Abdou Wahab Diop moom Serigne Massamba Diop Sam Euh, fii tey ci Daaru Saam euh, ci ziar bu am solo bi nga xam ne euh, njaboot gi ñu ngi koy amal ci kanamu xalif bi mbooloo mu takkoo nag ñoom macha allah ñi ngi teew fii ci Daaru Saam di ko wéyal rek macha allah ci ni nga xam ne it noonu la ko sunna daal di santaane muy jàng alxuraan jàng xasida salaatu ala bi amal ay bernde ci mbooleem buntu kër Serigne Massamba Diop Sam yi nekk fii eh, njaboot gi fa nekk mbooleem taalibe yi di fa wéy di amal li nga xam ne moom mooy eh, ziar bi tax tey eh, Touba Argentine TV fa yéenewul benn yoon dara rëcc leen ci li nga xam ne mooy am fii nga xam ne moom moo di ci Daaru Sam borom guddul sunu fan wéral seen cër yàgg fee ñëw yàgg siyaare yéen ñii ngeen yéeneen programme bi ñoo ngi leen di ñaanal ngeen gudd fan am wér gi yaram seen i yokk bu baax incha allah. maa ngi ah. man Soxna Say Ndiaye. Soxna Say Ndiaye loo wax siyaar bi. ah siyaar bi neex rek neex de. ah di ñaan rek yàlla may nu wér ak gudd fan ñu yàgg fee fekk suñu sëriñ yu baax di leen siyaara ci barke sëñ Touba. sama xol sedd guy rek. Ah. yàgg naa fee ñëw bari na ma mënuma koo lim. Ah. waaw jërëjëf. yàlla waaw. Ah. Abdou Khadir Fall. Njukki Pekes. Njukki Njukki waaw. ñaata at ngay ñëw. mille neuf cent soixante ba léegi de manqué wu fi benn màggal waaw. taalibe kër gi. taalibe laa ci kër gi. ci laa judd fekk sama papa. te sëñ Mat Diop sëñ ma Samba sama papa ci la jébbalu woon ba ci sëñ Modou Badar ba ci sëñ Thierno ba ci sëñ Bas mii jii fii laa judd fii laa yaru fii laa xam Daaru Saam. bañ bi ñëwee ba day heure buñ fi jogee rek xiwal yi day gën a yokk day gën a yokku di ñaan nag xalifa général xalifa bi yàgg fi lool sëñ Bass sunu wasilaat yàgg fi lool lool lool te wér ak mbooleem képp képp ku sa kuy waa kër ma sëñ ma jom ma sàmm jërëjëf na fi ñëpp yàgg lay fay. yaa ngi ànd eh, fan nga jógee ñëw fii. Darou Moussi laa la. Fat Thiam. taalibe nga ci kër gi. waaw taalibe kàddu nga yëkkati. xanaa kàddu sant rek. ak ñaan yàlla lépp loo nga xam si waay. waaye in ñëw na ko fi rek. yàlla na say aajo faju biir ak biti. ma ne ko biir ak biti. nuy sant sëñ ma Massamba Diop saam rek. di waa kër sëñ Massamba Diop saam rek. di waa ma sëñ Massamba Diop Samb rek. waaw ah, man de man man de taalibe laa ci kër gi ndax man Baye Serigne Diop lañ ma tuddee waaw mu seex ma waaw kàddu gi may yëkkati mooy siyaar sëñ Massamba Diop Samb rek yaakaar ko nag àdduna ak àllaaxira waaw di leen rek. Baye Serigne Diop lañ ma tuddee moom sëñ ma Samba ba Samb. macha allah yow taalibe nga ci kër gi wala sët nga ci kër gi. kan waaw. sët nga ci kër waaw. moom suñu fa mi ngi nii neex rek. waaw ñu ngi. waaw macha allah. waaw fii nga waaw fii laa dëkk man. waaw Mbacké waaw taalibe nga ci kër gi waaw taalibe la bu baax a baax kàddu ah, xanaa di ñaan rek seen ñaan rek fan gudd lool ak wér gi yaram ñaanal sëñ bu baax a baax ñaan xanaa gudd fan ak wér gi yaram a xéewal bërëb bi nag ngeen di jàkkaar lool euh, mooy euh, actuellement kër xalifa Serigne Massamba Diop Sam di Serigne Abdou Rahim Diop Euh, moom Serigne Massamba Diop Sam macha allah euh, euh, moom nu ngeen di jàkkaarloo nii nga xam ne moom la fi yàlla teg tey mu toog toogaayu Serigne Massamba Diop Sam ju koy ñaanal suñu borom gën ko fay yàggal lool te dolli ko wér macha allah mu daal di wuuf mboolem njabootu njabootuk ma Massamba Diop saam gi fi nga xam ne moom moo di ci Daaru Sam macha allah tey Touba Argentine TV daal di ñëw ci ziar bi ngir.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 dëkk bi di Daaru Saam euh, mbokk yi euh, nga xam ne ñooy seetaan euh, Touba Argentine TV macha allah ba tey rek ñi ngi fi nga xam ne moom moo di ci Daaru Saam ci nemmeeku gi nga xam ne ñu ngi koy amal ci mboolem kër njabootuk sëriñ ma sàmba Diop Sam waaye ñëw nañ nag ci buntu kër kenn ci njabootuk sëriñ ma Samba joob Sam waaye kenn ci jëm ji nga xam ne moom mooy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 laa ilaha illa laahu wala nahbudu ila iyaahu muxlisina lahu diina walaw kariyal kaafiruuna allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim moodu li yàlla boole ci bokku ndey a bokku maam kàddu yu gàtt te gudd nga xam ne yaay man maa yow waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah bokki julli yi bokki taalibe yi tey noo teew ci Daaru Saam kër sëñ eh, Masamba Diop Saam dëkkub sëñ Masamba Diop Saam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 mbokk yi nag ba tey ñu ngi euh, fi nga xam ne moom mooy que Serigne Alxaaji Diop xalifa Serigne euh, Mbacke Diarra Diop euh, macha allah moom fi lañ nekk nii ñuy waxee ak yéen macha allah muy Serigne nag ki nga xam ne moom mooy El Hadj Gora Seck mi nga xam ne moom mooy borom PDG Touba Argentine TV. ba tey rek mbokk yi ñu ngi fii nga xam ne moom mooy ci Daaru Saam. Euh, di couvrir li nga xam ne mooy ziar bu am solo bi nga xam ne mu ngi fii am euh, actuellement nag ñi ngi fii ci kër Serigne Alxaaji Diop euh, xalifa Serigne Mbacke jaara nekk Serigne Alxaaji a sekk mi nga xam ne mooy PDG wu Touba Argentine TV. ñi ngi ñëw nag toog nii ci kanamu ku tedd ki di Serigne Alaaji Diop macha allah euh, gis ngeen boobu ba léegi taalibe yi ñi ngi amal li nga xam ne moom moo di euh, ziyaar yi ginnaaw bi nga xam ne it euh, jógee nañ ci li nga xam ne moom moo di berne yi. ci suñu loxo ndeyjoor it ñi ngi jaajëfal bu baax seex sekk moom tamit nekk rakku Alaaji a sekk di ko nuyu bu baax di ko ziyaara kon sëriñ bi tey ñi ngi fii ci Daaru Saam ci ziyaar bi ñu ñëw fii ci sa kanam ngir fas yéene laa suñu micro. taataan ci yow ay euh, kàddu ci bis bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy amal ci dëkk bu tedd bi nga xam ne moom mooy Daaru Saam. jërëjëf baax na kon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen mbokki taalib yi yéen mbokki jullit ñoo ngi leen nuyu di leen sant leen gërëm ci taxawaay bi ak ci posté bi ak yéene ji ak doxaleen bi lépp tubaarkaal yoonu góor ñoo ngi leen ba sant suñu Massamba Diop sama borom defal la ko ci daraja Cheikh Massamba gis nañ taxawaay bi yëg nañ taxawaay bi lépp sëñ Massamba mi tax ngeen di jëf yàlla na leen fay boole na fay léegi nag maa ngi leen di bàyyi ak El Hadj mi mu jottali ma sama kàddu ni ngeen ko bëgg yéen yëpp jërë ngeen euh, sëriñ bi dafa jox Baye El Hadj di magu euh, taalibe ci kër gi moom it sëriñ bi jox ndigal ngir ñu war ko jox kàddu gi kon sëriñ bi yaa ngi ànd ak Touba Argentine TV asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa mu mel ni am na waxtaan wu nu sëñ bi dénk. ñu bëgg koo jottali. ci taalibeem boo xam ne dafay yabal ay surgaam ñu koy wax alaji Seck alaji Góore Seck Touba TV Arsanti di ay doom ci kër gi di ay taalibe ñoo xam ni ci lañ juddoo ci nday ak baay ci kër sëñ Mbàkke Jaar yàlla dogal boobu ba léegi ñu ànd kook seen waajur Cheikh Issa Seck di ko dox dox doxin wi gën a rafet ci doxiinu taalibe wu ànd ak ko bi yar ak i teggin ak di ñuqi seen alal di joxe ñu ànd ko ak seen waajur nekk ci ginnaaw sëñ bi muy lu yàgg te sëñ Mbàkke jaara ba tey seen laxasaayu baay musa tekkiku ba ñoom ne ñu màgge fekk seen baay ci kanam sëñ alaaji mu wuutu fi sëñ Mbàkke Jaara di fi taxawee ni seen baay doon taxawe walla nu ko raw loole ba léegi mi ngi dox nu fekke ci lu bari xam ci lu bari loo xam ni jataay bi mënunoo may nu wax ko ngir jota dig nit ñi ak xataayu jamono ji waaye nu le tuuti rek ci sëñ bi doog ñëw ci sëñ bii ko wuutu muy sëñ Mbàkke Jaara mi nga xam ni moo waral lii tey jii moo meññ njaboot gii fi ne di sëñ Alaaji jiitu ci bopp bi nga xam ni jàmbaari fàkk tëdd la woon joo xam ni nit la woon koo xam ni si musa tàllal mukk ab loxoom ab taalibe mbaa mu tàllal ko ab fonctionnaire mbaa mu tàllal ko benn homme de loi pour mu tegal ko ca dara la mu xaman ca la nekk ba suñ jonni tey ji ñëpp di ci dund muy bay di dunde ak bay di dimbalee ci loolu lañ xaman sëñ Mbàkke ba ñëpp xam ko ci nun ñii di wax ak yéen ah sunu wayjur ak ñi nga xam ne noo maasee ak ñoom seeni wayjur nun ñépp lun man tey sëñ Mbàkke Jaara moo tax nu man ko loolu bari na ñu ko xamul te bokk ci waa kër gi di taalibe bari na ñu ko xamul te bokk ci kër gi sëñ Mbàkke jur leen wala sëñ Mbàkke jur seen waajur mu doon ab dimbalaa boo xam ni daawul laaj di joxe da daan bay di joxe loolu ci la saxan doona nit koo xam ni sam ku nangu woon ku ko yilif la ki ko xam ni moom la fekk woon kilif fa muy sëñ Mat Jóob mu yore woon léppam dëkkan koy loxoom mu doonoon léppam ay loxoom ak tànkam aki bëtam daan ko doxali daan ko seetali daan ko jëfali ci loo xam ni si ñi fi nekk ñëpp te maasee at te daan ci daan dëkkandoog noom xam nañ ci lu bari liñ ciy wax lépp xam nañ ko kon nag sëñ boobu ku mat a ñaanal la ndax lii fi nekk lépp mooma kon nag nu lay ñaanal nga ñaanal dong yëpp ñaanal sa rakk yëpp ñaanal jigéen ñi ñaanal góor ñi ñaanal mag ñi ñaanal ndaw ñi ba lépp lu waay yéene bu déwénee kenn rek man ñu ngi koy ñaan nga ñaanal nu ko te boo ko doogoo sëñ Masamba danañ ko am kon nu ngi lay ñaanal nga ñaanal nu ko ñaanalal dong yi ñaanal sa yi ba bu déwénee ku defan ñaar dërëm nga ma a def ñetti junni baa fukki junni boo ko ñaanee te doogu ci ci sëñ Masamba sëñ Masamba danañ ko defal ñaanal seex mi itam ah, lii nga xam ne si moo fi nekk nu di ko dox di ko guddeeg bëccëg see eh, góor a sekk bu déwénee muy tele bu mag boo xam ne si foo capté capté ko nu ngi koy bëgg na nga ñaanal ko ko ndax nit ku ne lu muy tàmbali lu ne cib sew sew rek lay tàmbalee waaye ñu ngi lay ñaanal nga ñaanal ko nag mu ni dàng ba ñëpp xaj ci ba bu nu amee lu ñuy euh, publicité mbaa nu bëgg koo jaarale nu jaarale ko ci teleem yàlla mën na ko ñi ko fiy def ay nit dong lañ kon nag ñoo ngi lay ñaan nga ñaanal ko ci bis bu tedd bi ndax boo gisee sab docteur amu malade da ko war a wan malade ba wax ko ca la nga ca bëgg wax ko fay metti du dara lu weesu ñaanal ko yàlla ubbil ko lii nga xam ni bëgg-bëggam la mu yaatu lool ak kii nga xam ni si moom laa andal ñëw fi TFM la di rajo bu Youssou ñu ngi ñaan moom itam suñ boroom li nga xam ne gis nañ ko mu koy def ci yoonu murit ñëpp gis nañ xeebu leen génn kër waaye yoon yi moom noonu la foo romb xeeb ko fekk na foofu nga war a jariñoo kon nag nu ngi leen di xamal ñëw ngeen ci kër goo xam ni di kër sëñ Massamba Diop di buntu ci kër sëñ Mbacke Diarra Diop sëñ Alaaji Diop mii di njiitul kër gi ñëw ngeen foo xam lu luñ leen fi ñaanal dañ leen leen dal lu ngeen bëgg tey ji lu ngeen am ren ji bu déwénee di ngeen am lu këpp da bay bu ngeen takk ko téye ko ba déwénee rek jàmm yàlla na fi yàlla taselewaat te mbooleem nun ñu fi teew kenn bañ a manqué ñu ngi koy ñaan sëñ bi nga ñaanal nu ko nun wax rek la ni wax mënuñoo ñaan yow yaway ñaan ñaanal nu bu déwénee nun ñi fi teew bu fi kenn manqué nun ñëpp nañ fi teewaat te kenn ku ci nekk la nga man ren déwén na nga man lu góob sëñ bi ñaan ko boo ko ñaanee yàlla dana ko def barke Seexul Xaadim jërë ngeen jëf waaw bismillaahi rahmaani rahiim mm-hmm. amiin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin mm-hmm. bismillaahi rahmaani rahiim laa ngi lay nuyu salaam ñu ngi leen di fay du war nga fay tur bi naka la Cheikh Diop laa tudd man Cheikh Daba Aw Gora wete garab Gora Seck waaw maa ngi maam di leen sant di leen gërëm di sant Gora Seck it ndax lii moom yokk koo def koo jëkk koo def tey waaye nag yal na ko ci yàlla ak Serigne Touba may ndam ci barke Serigne Massamba Diop mi tax mi koy def waaw màggal sëñ sëñ màggal gi moom euh, cantu Daaru gu Saam gii sëñ sëñ sëñ ci boppam moo ni ku fi yàgg danga ma fi danga ma fi danaa la fi fekk wala ma ma fekk ma waaw koo fi ni jàng daal nee na sëñ Touba ci boppam nee na dana la fi fekk moom waaw moo ko moom Daaru Saam gi moo tax fi leen fi nañ fi jëlee fan leen fi jëlee ay xéwal yu baax bari bare siñ Sëñ Tuubaa ba tey rek ñu ngi ci kër gi taxaw ak sëñ Mbacke Diarra Leye di njiital euh, daayira bi nga xam ne moo yore wàllu organisation bi fii ci sëriñ Mbacke jaara euh, sëriñ bi ñu ngi lay dalal ci Touba Argentine TV di la bàyyi nga yëkkati euh, kàddu yi ci bis bi nga xam ne mooy am fii nga xam ne mooy Daaru Saam. Mhm. asibillahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim maanaam kàddu yi mooy kàddu yi sant rek di ñaanal sëñ El Hadj mu yàgg fi lool ak mbokki taalibe maanaam ñoom ñëpp rafetlu naa seenub liggéey te xam ni maanaam euh, li ma ci santé ñoom kenn ku nekk def na ba def loo mënul et puis kenn ku nekk maanaam yaa xam li nga bëgg yal na la yàlla defal ak jàpp jàppandi mbokkiteel bi nga xam ne ñoo yore wàllu rajo beet maa ngi leen di ñaanal ak jàpp jàppandi ci ñoom ba yàlla defal leen lu kawe seen joor di sant sama mbokkiteel bi baax a baax a baax ci ginnaaw boo taxaw boo rafet bi nga xam ne taxaw nañ ko liggéey bi ndax lii nuy def nii ma sëñ bi mënu ko comme que sëñ bi mënu ko nag ñun ñoo ko man yàlla dugal na am na may nenu kàttanu def ko a ah ñuy ñaan yàlla bu déwénee ñu man lu ko gën a kawe rek waaw loolu rek la ñu ñaan di sant bu baax a baax a baax rek mbokki taalibe yi di tàmbalee sëñ bi mbéy mi seen seen Cheikh Seck mi ak sama mbokki taalibe yi jógee Daaru Jóob yëpp ñoo ngi leen di sant rafetlu nañ liggéey bi bu baax a baax daal di ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom jàmm mu defal nu jàmm dëbb nu kàttan goo xam ne maanaam pour bu ëllëgee rek lu nu yéene rek man ko yàlla na nu yàlla boole jàmm ñun ñëpp wa salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk nag ñi ngi fi nga xam ne mooy que Serigne Moustapha Diop xalifa Serigne Abdou Samad Diop moom Serigne Massamba Diop Sam euh, tey Touba Argentine TV ñëw fi sëriñ bi ci bis bu am solo bi nga xam ne bisub ziar la di amee fii ci Daaru Sam euh, ñu bëggoon a taataan ay kàddu rek ci bis bi yan kàddu ngay yëkkati ci bis bi sëriñ bi. bisimilah bi seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. mbokki Argentine ñu ngi leen di nuyu. di leen ndokkeel bu baax ci bisub Seex Masamba Jóob Samb bi ginnaaw bi leen sante gërëm leen ci yitteel gëm leen yitteel ba ngeen dagg seen tey yëpp ñëw fii tey euh, ngir bisu Sëñ Masamba Jóob Samb loolu ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm waaye di sant bu baax di gërëm itam kenn ci ñun koo xam ne doomi kër gi la ca am ab cër ci télévision bi di a sekk ñu ngi koy sant bu baax di ko rafetlu taxawaayam bi nga xam ne nemmeeku nañ ko bu baax ci lépp lu muy dox ci lu baax waaye rawatina nag kër Serigne Massamba Diop Sam bi nga xam ne euh, moom la xam moom fu mu la dëkk fi la juddoo fi la yaroo loolu na ñu ngi ko ci sant bu baax a baax a baax waaye di sant yàlla bu baax subhaanahu wa taala ci wamat gi ñu wamatal ba teewal ñu ko bis bi tey bis bi nag di bisum mbégte di bisub siyaar di bisub saafoonte waaye di bisub ñaan yàlla ñu ñaan yàlla mi nga xam ni dara tawu ko yàlla suñu borom dimbali ñu te defal ñu tawféex defal ñu suture lépp lu ñu fi ñaan ci bis bi suñu borom kattanal ñu mañ nangul ñu ko ca gën ngaa rafete nangu waaye noonu nañuy sant itam mbooleem taalibe yi nga xam ni ñoo nekk ci biir réew mi ak bitim réew ak fépp fu nga xam ne émission bi dana fa àgg rek sant ga àgg na foofa ngërëm yi tam àgg na foofa di ñaan yàlla borom subhanahu wa taala mu defal ñu tawfeex ñu fekkewaat ko déwén ni bëri bëri ñu sant sëriñ Arouna yow itam gis nañ taxawaay yi nga xam ne euh, yaa ngi koy taxawee ci mboole événement yi xew waaye rawatina ne xew ci kër gi nag mu sa yitte lool nga koy defee nu kawe jot ñu ngi sant bu baax ci di la gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu macha allah jërëjëf mu Moustapha Diop xalifa Serigne Abdou Samad Diop ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati nga ko Euh, kon yéen a ko déggandoo muy kàddu yu am solo ci bisub ziar bi nga xam ne macha allah mi ngi am fii ci daaru Sam mbooleem taalibe yi di ko teewee fii nag bi ñu ñëwee fekk nañ euh, taalibe yi di amal ziar ci kanamu sëriñ bi macha allah muy saafonte ak euh, ñoom muy ñuy sàkk ci moom it ñaan. Euh, kon loolu lañ fi jot a nemmeeku jàng yi mi ngi noonu bernde it macha allah lépp di bàyyi ko fii ci kër Serigne Moustapha Diop. kon Serigne bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm Touba Argentine TV incha allah di ñaan yàlla ñu teewaat fii yeneen jëmmi jamono euh, yàgg la fee fekk ñu yàgg fee ñëw. Euh, kon jërë ngeen jëf mbokk yi incha allah ñu ngi woon fii ci kër Serigne Moustapha Diop moom Serigne Abdou Samad Diop. dañu ñëw pour màggalal suñu maam di remercier képp ku fi teew di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp sama xarit ci sama mbokk yi ñëpp déplacé ñëw ba fii euh, seet si ñu kon ñu am lu dul ay remerciement tey la ñu am mais nekkul ne tey dañuy politique euh, dañ dañ koy jéggalu xam naa ne mais nag dinañ dinañ sant Antoine tamit parce que nit ki soo xewlee mu jàppale la jàppale ci loo xam ne mën na am mënoo ko kon kooku mérité na nga nga nga félicité ko ci lu mu def liggéey bu rëy bi mu def fii ndax ku nekk xam na ne euh, ren ZIA 2023 bi Daaru Sam sécurité bi doy na sëkk ku mu neex mun nga dem fu la neex ba pare ndox manqué wu fi courant manqué wu fi kon loolu yëpp dañ leen ci euh, sant bu baax a baax aussi di sant euh, asugaawaan mi nga xam ne sama xarit la sama doomu ndey la lépp lu ma xew la daf ci teew bu baax a baax di la sant yow tamit Arona di sant képp ku jóge Touba Dakar ba Saint-Louis maa ngi gërëm ñëpp di gërëm sama famille waaw ci la bokk xam nga ko woote gàmmu mooy lekk naan bernde loolu ci la bokk